merci beaucoup Néné alors euh, monsieur le ministre bu ñu déggee président de la république euh, di wax ni changement de cap de communication. insister ñu bâtir beneen communication micro. Ah bi moo ndog bi <laughs> xaw ëpp merci beaucoup Deme alors président de la dégg nañ ko mu wax ni changement de cap de communication insister euh, ci ñu bâtir benn communication est-ce que bu ko président waxee nekkul benn aveu d'échec ci communication. bon <coughs> xam nga xam nga mbir mi bu ko bi mu commencé. dañuy jël ay mesures président dafa jël ay mesures ñëpp doon wax ne sunu mbokk étudiants yi nekkoon waa dañ leen war a delloo Sénégal président ne mbir mi ni mu demee ak euh, capacité bi ñu am fii tax na mënuñu leen indi am na yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo gën a am ay moyens dañuy rapatrier seeni compatriotes ñi jóge Chine ñi jóge yeneen pays yi nga xam ne yeneen dëkk yi nga xam ne dafa euh, mbas mi dafa lawoon mais pays yooyu aujourd'hui il sont à plus de cinquante cinq mille décès ñenn ñi ñu ngi ñu ngi ay trente mille décès ñeneen yi ainsi de suite ainsi de suite xam loolu kon affaire bi avant muy nekk communication décision la d'abord nguur dafa war a am capacité de décision parce que loo gis rek décision la xam nga même sa biir kër am na li nga xam ne du affaire communication affaire décision la c'est-à-dire da nga war a wax ne affaire bi nii lay demee et puis noonu lay demee ça la capacité de décision mais boo toogee nit ñi ku nekk indi sa xalaat rapatrier pas rapatrier consort ngay yox yox yi ba affaire bi egg un certain niveau te jëluloo décision daf lay toroxal ça ça va ça désastre. mais gisoon tamit décision yi bokk na ci xool ni ñuy waxee askan wi. ngir ñu moytu feebar bi. non non waaye xam nga boo seetee. dama lay expliquer euh, mooy li tubaab di woowee monter en puissance c'est-à-dire jël décision tey ensuite mbas mi bu évoluer maanaam bu amee yeneen adam nga yëkkati décision yi ainsi de suite ainsi de suite xam nga président jógu rek ne dañu tëj ay daara wala ay ay ay ay jàkk jógul wax ko mais dafa am stratégie négociation maanaam waxtaan ak nit ñi kilifa diine yi euh, jullit yi euh, chrétien yi ñëpp la ñu waxtaanal pour justement mën a jël décision bi nga xam ne c'est supportable pour tous les citoyens donc loolu la léegi gis nga communication da ngay da am na li ñuy wax euh, lii tey moo moo gën a principal maanaam jàmp ñu def ko ëllëg situation bi changé nga adapté communication bi xam nga au début amoo woon kaa communautaire cas importé moo amoon ñu communiqué ci cas importé yooyu ba pare jël ci décision fermeture de frontières xam nga boobu communication mais léegi jàll na parce qu'il y a plus de cas communautaire donc dootoo communiqué ci ay mbiru cas importé alors Euh, ensuite mu am ay cas contact yooyu aussi dañ ci communiquer ne feebar waroo dem yow ci sa boppu hôpital da nga war a ci tel numéro pour que nit ñi ñëw jël si la danga nga war a également boo boo gisee ne am na li nga xam ne dafa nuroog Covid maanaam ay température ay ay nga woote ñu ñëw jël si la donc foofu aussi communication la léegi cas communautaire yi benn beneen stratégie de communication mais li ngeen di wax ak askan wi est-ce que dugg na ci nopp askan wi aussi tamit. mais mais mais boo boo demee ci marché yi tey nga dem fii euh, seen TV mais ñëpp sol masque. mais rassemblement yi ba tey jii tey la wàllu gën a ay. mais rassan waaw justement xam nga loolu moo tax mu ne la loo gis rek. communication ay ay étape la mais justement monsieur le ministre vous l'avez dit communication ay étape la euh, donc gis nañ tey jii ne que euh, cas yi ñu ngi gën a yokku cas communautaire yi ñu ngi koy dégg de plus en plus est-ce que tey jii mën nañ xaar ci gouvernement euh, mesures yi ñu doon wax ñu jël est-ce que mën nañ outrepasser yokk yeneen mesures yoo xamante ne dinañ gën a résistant peut-être pour xeex li di maladie bi waaw loolu la la la la laa doon wax sànq c'est-à-dire que à situation nouvelle communication nouvelle wala euh, mbir mi bu changé adam communication ci boppam moo war a changé tey li gën a li gën a soxal nit ñi mooy cas communautaire yi ah te léegi condition communication ràññee nañ ko ba pare xam nañ ne cas communautaire yi li koy indi lu bari mooy ci marché yi parce que nit ñi comme li ma ko doon waxee léegi da ngay gis gaa ñi seen am seen i masque fii lañ koy teg wala ci bopp bi walla téye ko wala bu ñuy waxante bu ñuy waxtaan dañuy dindi masque bi ah et puis euh, marché aussi dafa am na yenn marché yi nga xam ne nit ñi non seulement dañu bëri mais ils sont tellement proches la proximité. qui loolu faille la ci ci communication xam naa Fat Abdou mu ngi bëgg rebondir ci loolu. mais est-ce du faille un peu ci communication. état bi bu loolu laay expliquer boo tax ma ne fi ñu nekk tey principalement aspect principal communication bi mooy communiquer ci mesure euh, euh, distanciation sociale s'il le faut euh, ni ma ko waxee RTS. ñu def adapter les méthodes de communication commerciale xam nga communication commerciale da ngay gis euh, li ñuy tuddee la publicité sur les lieux de vente maanaam publicité bi ñuy def ci marché yi yooyu gis euh, ay produits camionnette mooy taxaw euh, mu am voilà gars ñi di wante produit bi di waxtaan ak nit ñi ainsi de suite s'il le faut ñu def ko parce que communication sociale aussi mun na adapté ay méthode communication commerciale il faut ñu def ko il faut ñuy waxtaan ak nit ñi c'est pour ça peut-être qu'on parle de nouveaux caps et parler de nouveaux caps ça ne traduit pas un échec ça traduit une évolution dans la communication parce que simplement situation bi dafa changer donc il faut ñu am ay méthodes yu bees ci wàllu communication étape mais lu jëm ci wàllu jàngoro ji ñëpp xam nañ ni ba mu duggee si euh, monde bi yàgg na gis nañ li am xuwaan donc est-ce que tey mënoon nañoo xaar tey ba egsi ci benn situation ba cas communautaire yi dugg ñu door a wax ni dañuy yokku. niveau de communication bi. xuwaan non xam nga euh, loolu laa lay expliquer c'est-à-dire que au début dañu ne sol ay masques n'est-ce pas après. loolu kii conseil sol ay masque bi sol ay ay masque bi léegi lañ ko wax parce que au début de la maladie dañuy wax ni masque yi du ñëpp ñoo ko war a sol déjà euh, way ji parce que simplement recherche bi ak expérience ci yeneen dëkk yi yëpp en Chine en France aux États-Unis loolu la woon loolu la scientifique yi loolu la ñu jàppoon mais ñu dem ba à un moment ñu ne mas bi du malade yi rek ñoo ko war a sol ñëpp ko war a sol ñu ne ñu conseillé ko nit ñi ñu dem ba à un moment ça a été rendu obligatoire donc ay kii la ay euh, ay euh, ay articulation la yi nga xam ne war nga ko respecter pour justement que les gens puissent accepter parce que am na li nga xam ne dañ koy tuddee seuil d'acceptabilité d'une décision boo ci eggul rek boo jëlee décision bi aussi ça ne sert absolument à de la République wax nañu ci lu jëm ci feebar bi. man nag je suis pas euh, chargé de la com du président. même ñi nga xam ne juste votre avis puisque même ñi nga xamante ne nekkuñu ci li nga xam ne moom mooy peut-être sphère au laaj nañ leen ko muy le fait que mu accordé interview France 24 RFI France Info bàyyi sunu bàyyi sunu sunu ay presse nationale. xaaral ba su ma su ma su ma su ma xarit Seydou Gueye bu ñëwee nga laaj ko. <laughs> mais monsieur le ministre loolu loolu monsieur le la ko laaj aussi. boo ma tontu ci yooyu. <laughs> alors Mansour peut-être muy jël le fait que le président de la République dem ci ñi nga xamante ne moom mooy presse étrangère bi pas le fait que yow nga nekk ci biir mais ban xalaat nga ci am en tant que journaliste bàyyi fi li nga xam ne mooy presse locale bi.